asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal tey nag euh, am ngeen gan gu mat gan muy euh, Pape Mahawa Diouf mm. képp ko xam-xam ne moom mooy directeur général agence sénégalaise de promotion touristique ASPT képp ku ko xam it di nga ko gis ci média yi di nga ko gis ci télé yi muy taxawal Benno Bokk Yaakaar di représenté foofu waa APR aussi nekk tamit si seen chargé de communication Pape Mahawa Diouf Sénégal mu ngi lay nuyu waa maa ngi leen di fay waa Senego di leen gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen ñu invité. Hmm. di nuyu itam seen téléspectateur auditeur hmm. ou surtout internautes yi leen di seetaan fépp ci àddina bi. Hmm. merci beaucoup euh, Pape Mahawa Diouf ñu tàmbali directement rek waxtaanee réew mi mais bëggoon naa la laaj avant may euh, tàmbali Sénégal neex na. Sénégal am na jàmm. yàlla na jàmmam yàgg. yàlla na jàmmam sax mhm. niñ ko fi sunuy maam ak suñuy bàyyi bàyyee nañ ci góor bu gën ko dëgëral gën ko sàmm te it nag dëkkuwaay la boo xam ne ku xool continent bi nu mu bindoo mhm. war a xam ne war nañ sant yàlla mhm. ci li nga xam ne mooy jàmm ji fi dox ci ci xol yi ci diggante askan yi waaso yi ci diggante diine yi loolu yëpp bokk nañ ko bokk Sénégal mu doon benn bopp te mënu ko xar ñaar. Mm, mm, si jàmm jooju si jàmm jooju nga wax ne gisoo ne jàmm jooju commencé na nekk fitna ndax boo xoolee jamono ji ñu ngi génn ci euh, procès Ousmane Sonko ak euh, Adji Sarr bo waroon ubbi démb te euh, ubbi na sax ba actuellement ni dañ ko renvoyé ba mardi prochain mais gis nañ ne la veille tension amoon na Ziguinchor ak un peu partout ci Ndakaaru ba ñu saccagé ay bus tout sax donc loolu lan moo ci sa première réaction par rapport ak tension yi am Ziguinchor ba am na ay moor doom actuellement on compte presque trois morts deux à Ziguinchor benn bi aussi fii ci Kër mbay Fall. waaw ñi ngi jàllee euh, famille yi nga xam ne ñoo am euh, ay ñi ci ci ci gaañu. Mm-hmm. ñi ngi ñi jàllee seen i mbokk ak famille yi nga xam ne ñoo ñàkk seeni doom. di regretter euh, encore une fois que ci action yu demee nii. ñuy dem bàyyi accident di ci am foog kenn ki dañ ko jam paaka. policier bi accident la ak oto bi euh, ñuy regretter dese yi ci am yëpp. Euh, mais ñu demee nii day baax ñu fàttali ne woote fitna ak désobéissance civile moo indi lii. Euh, responsabilité dafa war a dafa war a ñëwaat nit ñi delluwaat seen xel euh, te xam ne du fitna ak euh, sacrifier xale yi di leen génne ci mbedd mi xale yu ndaw ñu génn ci biti di di di di di sànnante xeer ak takk der yi mais samba boy ne aussi di ci dugg kooku ñu jàmpaaka ak agression yi ñuy def ci nit ñi les destructions de biens privés yàq yëfu jàmbur yàq terre bi euh, toj Senelec bi ñu bokk pour lan loolu du tiitalul nit euh, te taxul nit tam changer pas-pasam ci engagement politique fii ci réew mi euh, nit ñi ci idée contre idée la sénégalais yi di tànnee ñan ñoo leen di jiite donc nañ ko nañ ko dol dolli dolli teg foofu te mooyu di wootee fitna ak jàmmarloo ndax fitna ak jàmmarloo moom ay duyam ci boppi borom. mais ñi ngay wax ne dañuy woote fitna est-ce que ñoom it jàpp ñu ne da ngeen leen di jaay doole surtout rawatina président Macky saal moom lañ jàpp moo leen di jaay doole bëgg xañ ñenn ñi ñu bokk ci élection est-ce que du lool tey moom moo andi fitna gi. ci naka. ndax ñu ñuy yóbbu ci yoon yóbbu leen ci justice ñuy am problème ak justice. ah kan lañ yóbbu ci yoon. ah kenn Ousmane Sonko déjà Khalifa Sall amoon na condamnation Karim Wade amoon na condamnation. waaw dañ jàpp ne c'est des manœuvres politiques. Ousmane Sonko du état moo ko yóbbu yoon du benn ministère moo ko yóbbu yoon. waaw ah, est-ce que loxo état da cee génn. Euh, su ci loxo état duggee nga wax ma fa ca duggee mais li nga xam ma xam ko mooy moo taxaw teg tuuma ci deru nit ne gis na ko mu mu mu xaalisu réew mi euh, te am na firnde yi mi ngi xaar yoon woo ko mu génnee firnde yi loolu foog naa dégg nga ko. Mm-hmm. dégg naa ko. Mm-hmm. waaw firnde yooyu kay su ko amee na ko génne loolu la génneegul. Mhm. su ko génnee amul benn problème te nag du état moo ko topp. Mhm. c'est une personne privée moom moo wax ne am na firnde yooyu ñu di ko laaj bu génnee firnde yi. bi ci des tamit mook euh, janq boobu ñoo jote mhm. jànq bi euh, porté ko plainte moom la dem seetal deram loolu bët bu set bu am fi teg tuuma day am nattu day am ci àddina mais ci dossier boobu dañ leen ci tudd lu bari tudd ci ñu nekk APR tudd ci ñu nekk Benno Bokk Yaakaar ba tey Ousmane Sonko boo tuddee dossier bi danaan la complot la ci dossier boobu donc moo terminé moo di ne euh, mook jànq boobu na dem teggi tuuma mhm. mais doo taxaw teg la tuuma nga naan dañ ma jiñ lii ak dañ ma complot que non wax ji compliqué wul noonu. Mm-hmm. wax ji dafa yomb. jànq bi li nga ko jiñ dafa garaaw. Mm-hmm. te am waa na dem euh, setal deram parce que loolu bokkul sax ci politique c'est pas un mm-hmm. sujet politique. foofu amul débat politique amul idée amul projet amul économie mook jànq bi ñoo jotee. Euh, fa wax ne doon benn su dee loolu yëpp c'est cousu de fil blanc su yeggee dina ko prouver et moom waxoon na ko sax. ne woon na dafa yàkkamti procès yi mhm. pour mu dem mun a seetal garam na def loolu mu jeex loolu kay amul mais que aussi Ousmane Sonko bu toogee ba bëggatul dem wuy ji justice comme ni mu ko waxee la dernière fois ñëpp dégg nañ ko mu ne woote na désobéissance civique te dootul dem wuy ji justice ci procès ba parce que it waxoon na yegg nañ ci terminus est-ce que jàppul ne aussi tey Macky Sall coñcam boobu moo waxoon da ko teg si justice ba léegi waaw loolu Euh, Macky Sall musul wax ne dafa teg concam ci justice. moo ci yenn dossiers yi. musul wax ne dafa teg concam. ci lan la waxoon waaw loolu du du benn en tout cas mosuma ko dégg mu wax ne dafa teg concam ci justice loolu waxu ko lii lii lii li am solo ci li nga laaj. Mhm. moo di ne ñu bantuwaat ko. Mhm. jànq bi ko porté plainte. soxna Adji Sarr moo ko porté plainte. Mhm. Euh, moom ci boppam ne woon na dafa yàkkamti dem fetal deram man pour man. kuy woote kilifteef bu day ni moom li nga war a def mooy wujj yoon setal sa der mhm. loolu mooy li dëgg mhm. leneen loo def rek yaa ngi caaxaan mhm. rawatina nag nga di ci woo ay nit di ci rey seen bakkan loolu moom euh, vraiment yëfu doye di lu baax loolu xam nga ku mel ne Ousmane Sonko ndaw yi jox nañ ko nopp ndax bu ne génn leen ndaw yi génn te boo gisee li fi xew yëpp ci fitna en grande partie tey bu wootee wala mu war a dem procès yooyu ci lay xew est-ce que tey jotul président Macky Sall xoolaat problème mu justice boobu noonu muy problème am beeg Adji Sarr ak problème ak bu mu am ak Mame Mbaye Niang ñu xool naka la ñuy def ba régler lool pour une bonne fois. léegi loo bëgg la république def. non yow laa laaj. waaw ah, mais dama leen laaj man parce que man gisuma man sañ-sañu président de la république ci action privée lu nit jël plainte plainte ko yow. loolu lu ci président de la république. ah xam nga tey un procès boo xamante ne c'est coûteux même pour l'état du Sénégal. tey Ousmane Sonko buñ ko convoqué. buñ ko convoqué. dëkk bi pratiquement léppay bloqué. ba récemment dégg nga ñuy yor cag-cag yi sax jakartamaan yi di kaas. ñooñu leen bàyyi ñu liggéey. parce que bu procès amee sax. Ah, dëkk bi moo war a débloqué. mais lu ko war a débloqué. ni ko war a débloqué mooy ki war a wujj yoon wujj yoon yow tax doo wax loolu. lu tax ngay laaj leneen war a laaj kay mooy ni ñuy def ba ki respecté wul yoon ñu di la convoqué nga bañ li ñuy def ba teg ko ci yoon loolu ngay laaj waaye doo wax ñu jalgati yoon. waaw léegi par rapport. waroo demandé waroo demandé ñuy waroo demandé ñuy jalgati yoon. par rapport ak moom li dootul wuy ji yoon. waaw loolu moog yoon la. Mhm. xam nga yoon maa ngi yow ci yem. Mhm. mais tey boo amoon conseil tey boo koy jox par rapport ak dernière déclaration. mais man wax naa la li mu war a def sax si doon sama gis-gis kilifa gi mu ne moom lay woote. loolu mhm. yoon wooyee da ngay waaye doone xale yi génn leen dee xale yi nag wuy ji wuñ mhm. su ko xale yi wuy ji woon kon dëgg bi na takk ba tey. Mhm. loolu amu fi li ñuy def gis nañ ko teg nañ ci suñu bët. lan la ñuy def sequñu ko aussi ak ñoo xam ne xamuñ xamuñ xamuñ mbir mi muy doxee. léegi lan la ñuy def li ñu constaté sénégalais yi ñu ngi toog seen kër yaa ko wax sànq dañ dem toog seen kër kenn génnul kenn topp ko ci li ñuy wax naan nañ tal pour ñuy tal dëgg bi pour lan. li jot a xew nii barki démb da nga ko xeeb. pour pour ay waxu politique. nga bëgg a taal réew mi nit ñi di faat seen bakkan doy na. woote bi pour ay bakkan yu rot dafa doy ci loo xam ne seefu bopp la ak une personne privée c'est inacceptable loolu dañ ko war a bàyyi. ndax dossier bi compté nañ ci presque 17 morts. dama ne ñun démb comptabiliser ne ñaar fukki bakkan ak juróom-ñeent yoo xam ne ci biiru caaxaanu Ousmane Sonko yi ci lañ daanoo tawul fenn. waaw état bi daal ñun ñaan nañ ko mu jël toutes ses responsabilité pour sécuriser les Sénégalais garantir la libre circulation des personnes ak seen i biens ba pare maintenir l'ordre public def na ci effort yu am solo mais xam nga nag il foog ngeen jàpp dara jamono moo soppi mhm. maintien de l'ordre public léegi dafa complexe réseaux sociaux yi Euh, du Sénégal rek moo xew France xew na fi euh, Amérique également. Mhm. mais fii quand même gàcce njaaraama am nañu ay forces de défense et de sécurité yu responsables yoo xam ne suñu toppoon yenn irresponsable yi nekk ci opposition bi. Mhm. mbir mi gën nañu gën a jafe. Euh, parce que c'est pas évident mais ñoom ñu ngi ci wane mat bu sa bu doy sëkk. Mhm. ak un professionnalisme boo xam ne quand même war nañ ko mun a saluer. léegi ñu dee woon mars deux mille vingt et ak récemment ñu dee ñi enquête bi moom fan lay toll. alors soo gisee état bi nga laaj ko ko yàlla ministre. de l'intérieur ah mais yow yaa <laughs> politique. Euh, la la cellule com de. waaw mais xam nga ku nekk cellule com de Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga le temps de l' état enquête bi mun na am sax mi ngi dox. ci dara man xamoo ci dara. moo tax ñu laaj la ko. waaye man mënuma la wax enquête bi fi mu toll ndax nekkuma dans le cadre de l' état. Mm-hmm. ministère de l' intérieur. Mm-hmm. ministère la justice. comme mm-hmm. ñooy doxal loolu. te enquête aussi am ay facteur discrétion yoo xam ne mhm. ni ñu ngi koy doxal sax te yow doo ko yëg man du ma ko yëg euh, Pape Mahawa mhm. euh, booy xool tension politique bi ak société bi nu muy yëngoo mhm. lu mu jaxasoowee soo dégloo tey ñu ci bari dañ naan la question troisième mandat bi moom moo ko waral ndax Macky Sall waxagul day bokkam du bokk waaye déggoon nañ quand mu ne su ma defee sama mandat juróom-ñaar def juróom bi damay dem bàyyi. ñu lay laaj tey yow sa position ci kàddu Macky Sall yooyu ak par rapport ak constitution bi lan la. waaw man dama yaakaar ne mun na ñëw xool affaire yi lucidement. Mhm. Euh, pour man objectif politique nga teg ko ci mandat. Mhm. troisième mandat ne sa objectif politique yëpp pour réew mi troisième mandat la pour man gàtt vision la. waaw mais blocage la aussi ma laaj dama lay tontu euh, objectif politique yëpp. nga teg ko ci juróomi at ci réew mi waxu troisième mandat ak mandat vraiment euh, euh, gàtt nga vision pour réew mi léegi nag euh, constitution 2016 bi biñ ko voté ba pare ñaari nit ñoo ci njëkk a wax kenn ki mooy Ousmane Sonko mu génn moom ci boppam wax ne président Macky Sall am na droit doon candidat en 2024 te kenn du ko ci marché loo ndax sénégalais yi voté nañ loolu ba pare. Mhm. keneen ki ko ci topp mooy Barthélémy Dias. Mhm. mu ne moom du marchal kenn. Mhm. du xeex ak kenn parce que sénégalais yi voté nañ en 2016. une constitution boo xam ne permettre na. Euh, le président Macky Sall mu mun a doon candidat en 2000. 24 ñooñu kon xëj na ñoom seen bopp yéen nañ seen bopp ñoom ñaar. waaye Macky Sall baal ma ñëw rek. baal ma yegg waaw baal ma mais ba ma yegg rek su ma yeggalee. waaw mais dama bañ. waaw su ma non non dama parewu dama parewu. waaw ma yeggali. alors après loolu am na ay constitutionnalistes. Mm-hmm. yu ne moom mun na ko mais damay bantuwaat. Mm-hmm. Ah, Ousmane Sonko moo mm-hmm. génn ne en 2016. président Macky Sall mun na doon candidat en 2024 te bu ko ci kenn xeexloo ndax sénégalais yi voté nañ loolu. Barthélemy Diaz ne moom itamit ah, président Macky Sall mun na doon candidat constitution 2016 bii ñu voté may na ko du ci manifester du ci xeex du ci yëngu. Ismaïla wax. ma léegi waaw mais yaa ngi may dagat. Boun Abdallah ne soo ma dagee ma bantuwaat ko <laughs> waaw donc ma bantuwaat ko. Amadou Ba wax mënta ah, nekk waaw mais ma bantuwaat ko <laughs> Barthélemy Diaz. non loolu wax nga ko. waaw mais damay bañ nga dagg ko bu ma dagg. <laughs> Barthélemy Diaz après les élections de 2016. Mhm. moo ne. Mhm. Euh, président Macky Sall en 2024. Mhm. am na sañ-sañu doon candidat ndax sénégalais yi jox nañ ko yoon Ousmane Sonko moom itam mu ne. en 2016. Mhm. Mhm. constitution bi ñu voté may na président Macky Sall en 2024 mu mun a doon candidat. Mhm. ba ñu jógee ci loolu. Ah, bëri na ay bëri na bëri na bëri na bëri na ay observateurs. ak ay acteur politiques. ay constitutionnalistes. am xaaj bu ne président Macky Sall mën na ko. am président xaaj boo xam ne bu ne président Macky Sall ko. Euh, mais ñaar ñi moom joxe nañ seen àtte mooy Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko yooyu joxe seen àtte ci mbir mi ak seen position ba ñu xam ko. Mhm. nee nañ président Macky Sall soit doon candidat kenn amul sañ-sañ di ko ko empêché ñoom ñaar ko wax. ñu seetlu nag en 2012 bi fi cas boobu amee. Mhm. mais ñun am na ci ñun ñu gëmoon ne président Wade wala doon doon candidat mais boo ko conseil constitutionnel àtte. Mhm. le président Macky Sall est faire sa campagne. donc le président Wade a bien pu faire. sa troisième candidature euh, leneen li fi mu toll nii kenn du candidat personne fi may wax ak yow nii mhm. du candidat candidat ñi may dégg ñu naan ay diw du bokk ak diw du bokk mais dañoo bëri dañoo dañoo dañoo bëri sañ-sañ mhm. ñoom amuñ sañ-sañ wax kii doon candidat kii doon nañ déclaré aussi seen candidat à la candidature na dama ñii naan ay président Macky Sall du bokk ak kii mooy bokk ak bokk mais ñoom ñëpp kenn si ñoom amul sañ-sañ wax kii bokk ak ku dul bokk. waaw mais ñoom bu ñu nee tey président Macky saal du bokk est-ce que teguñu ko fu ñu naan nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy li ngay def nii mooy li li nga xam ne euh, mooy pseudo juriste yi jógandoo ñoom ñëpp ku nekk mhm. xool ci texte bi lu la neex naan moom mhm. ngay mais à la fin de la journée. Mhm. benn kuréel mooy wax kii candidat. waaw mais xam nga li mu jàng xam-xamam kenn ko oh, euh, yóbbu ci marché di ko jaay Babacar Gueye Zoink y a loolu débat boobu bugguma mhm. ci parce que amul njëriñ pour Sénégal mhm. ñi toog di wax texte yi ñi naan article passion ñi naan la nul ne mhm. peut ñi naan la na défi loolu yëpp bu ñu sonal sénégalais fii am na kuréel boo xam ne moom lañ jagle waxuma ay nguuda mbub ak keneen lu am xam-xam kenn sant ko lool kiñ ko sant waaw mais am na kàddu ci réew mi aussi bu ma dugal ci wax jooju parce que moom am na kaddu ñeneen ñiy wax itam am nañ kaddu. Ousmane Sonko moo tax mu jafe position am par rapport ak lu conseil ko par rapport ak lu droit wax aussi. Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñoo ko ëpp kaddu xanaa ci réew mi. waaw xam nga Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz on considère que ñoom c' est des politiciens. Non. mais Ngouda Mboup tey on considère que c' est un juriste. waaw xam nga soo ma bëggee indil débat wu juriste bi da nga may indil du débat bu ma bëgg a dugg ndax mm-hmm. Babacar Gueye. c'est un juriste. Poujoinque, mm-hmm. c'est un juriste. Mm-hmm. Il y en a plein. Mm-hmm. Et des constitutionnalistes avérés. Mounir aussi, c'est un juriste avéré. Et d'autres. donc suñ bu dugg ci loolu loolu daf ñuy tardeel parce que da ngay am groupe bu taxaw naan mën na. am groupe bu taxaw naan mënul. mais selon yow. Pape Mahawa Diouf man du ma juriste. moo tax déglul bu baax li ma lay wax. man du ma juriste. te donc damay respecter sénégalais yi jox leen cër. du ma tëb di def comme ñu bëri ci ñun li ñuy def. Mhm. ku nekk jël la nga dégg non am na kuréel bu ñu jagleel mu wax kuy candidat ku ko doonul. Mhm. c'est le conseil constitutionnel. conseil constitutionnel moo ne woon Bougane Gueye 2019 mën a doon candidat. Mhm. sur la base du dossier. moo defoon euh, Madické moo defoon Idrissa Seck Ousmane Sonko candidat. moo ne woon Youssou Ndour en 2012 munoo doon candidat. mais yow sa position. par rapport ak. sama position président Macky Sall. ah man c' pour mu nekk candidat wala ah, a nekk non man je pense que c' est le meilleur candidat pour le pays. Ah, fan nga teg lool. que c' est le meilleur pour le mais li mu fi def liggéey fi liggéey boo xam ne poussé nga ñi nga xam ne dañuy opposé wu à toi dem ba léegi ne waxatuñ bilan nee nañ léegi kay bilan matériel ak immatériel la ñuy wax loolu mooy ñàkk pexe. mais surtout continuer am vision sens de l'État doon un leader bu inclusif boole ñëpp ci liggéey bi avec une ouverture incroyable def des résultats yoo xam ne sur l'histoire du pays l'histoire même de l'Afrique subsaharienne depuis les indépendances amul aucun chef d'État qui a eu un impact au plan économique au plan des transformations ci infrastructures yi ak au plan de l'impact social C'est un leadership incontesté sur le continent et je pense que il n'y a pas meilleur porteur de projet pour le destin du pays pour 2024 euh, que le président Macky Sall. Ça, c'est mon intime conviction. Enjeu sécuritaire yi enjeu de stabilité bi li tax président Macky Sall war a doon le candidat euh, de la coalition de la majorité c'est c'est c'est c'est c'est multisectoriel loolu loolu c'est évident. angle boo ko jël c'est l'homme qui rassure ça c'est ma ma conviction personnelle. par rapport sa intime conviction. Mm-hmm. fan ngay teg tey ci ki taxaw. ne ju euh, rakk bu njëkk bi juróom-ñaar la rakk bu stop juróom la su imam paree na sëlmal bu bañee sëlmal ngeen fekk ko foofu. waa léegi nga ne sa laaj lan la. mooy fan nga teg kàddu googu. fan laa teg kàddu googu. waaw kaddu googu sa kaddu la yaa ko wax kay léegi lan la. ah mais déggoo président Macky Sall wax ko. ba jël mandat méngali ko ak julli it. mandat wu kan. Euh, cinq ans ak sept ans. tontu naa la ci ba pare dama xamul li nga bëgg di ma wax la. <laughs> Pape Mahawa ça se voit que ne bu ko sori ci question boobu. li ma ci mën a wax wax naa la ko. Hmm. su dee da nga bëgg ci man débat polémique ay article ci rek article jaru ndax le débat juridique là ñaar daal lañ war a jàpp. Mhm. benn. Mhm. Euh, ku demee ni Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko jàpp nañ ne moom le président Macky Sall. candidature am candidature am en 2024 ça souffre d'aucune ambiguïté leneen li benn institution. Mhm. moo mun a wax kii doon candidat ak kii ko doonul muy le conseil constitutionnel enfin. mais nag bu bu kenn xeeb sénégalais yi. sénégalais yi ñooy tànn seen leader. su la conseil constitutionnel defee candidatam mhm. askanu Sénégal moo lay fal mhm. waaw loo xam ne nag li koy réglé mooy sénégalais yi ñooy voté tànn seen leader lu ci jar naan dinañ taal réew mi bakkan dina rot xanaa réew mi taxul ñu di ko def ak askan man ndax Sénégal fii ndax Sénégal fii euh, mënoo fi jiite nguur gi mënoo jiite senegal ci ay taal pëna mhm. ay menacé nit ñi ak ne dinañ rey feeg ay gàtt lépp li nga tontu loolu loolu lépp li nga tontu sénégalais du ñuy tànn noonu seen leader xob la ñuy jël voté li nga tontu leer na ah. leer na nañ internet dégg nañ ko bu baax ah, mais internaute yi dafa am loo xamante ne ñoom dañu ne ah. mais même ñi bokk APR bokk Benno Bokk Yaakaar ñu si mel ne ay Ismaïla Madior Fall hmm. ko xam te ne kenn werantewul li mu xam ci wàllum yoon waaw moom ci boppam taxaw na. Ah, li euh, xam nga li wax dégg ko li mu wax. am du moom rek bëri <laughs> waaw mais li nga wax nii euh, politique la man li ma lay wax mooy li nekk. <laughs> waxuma la waxu nasaxandak mënoon naa jël position nan la article tel nan la professeur jaay la léegi wax nga sànq ci mais mais mais li ma lay wax c'est très simple mhm. fii ci Sénégal sunu modèle démocratique mhm. le l'élection présidentielle dafa ne danga war a am trente cinq ans et cetera mhm. soo dajalee ay dossiers su la neexee yow. Mhm. nga am vingt cinq ans jël sa dossier dem déposer conseil constitutionnel yow su la neexee nga ne man suma candidat Abdou Diouf la wala nga ne sa candidat X mhm. mais loo munti wax comme candidat à la candidature da ngay jël dossier bu yóbbu ko. conseil constitutionnel. foofu dafa am ñu xarañ seen liggéey ñu jagleel mission bi pour ñu interpréter constitution bi mhm. ne ci kat war naa mun a bokk ne ci warta mun a bokk mais du saaga du fetal du tuur deret du menacer nit ñi du saaga leen du noonu ngay doone président de la république parce que nag su le conseil constitutionnel joxe aussi le mandat ba pare ne la yow mën nga doon candidat nga dem jàkkaarloog askan wi nag mhm. joxe sa projet ñoo ña nag ñooy choisir kan moo leen di jiite te xob la ñuy jël sànni ko ci ay kees ñu wëññi kees yi ngoon kan moo ëppale mhm. kooku doon président de la république mhm. loolu nag ci diggante boobu mhm. dama ci gisul fan lañ ci war a rey nit fan lañ ci war a créer fitna fan la ay nit war a jóg ne dinañ taal Sénégal xaar ko ñaar mais pour lan gis nga euh, la la sagesse de Salomon la ñaari femmes yi ñëwoon doon xëccoo doom ji te mu ne kon naa leen séddale doom ji ku nekk jël parti am benn soxna bu ne man jëlal may naa la ñu ne kon kooku jur doom ci loo bëgg doo ko tàll mhm. loo bëgg doo ko fat da nga koy sàmm et surtout nañu respecter la conscience de Sénégalais man c'est mon intime conviction te loolu mooy suñu leg démocratique bu solide bi ñu téye nii mooy fii mhm. c'est les Sénégalais vote pour choisir leur dirigeant mhm. te kenn mënu leen def loolu leneen loolu leer na par rapport ak euh, question troisième mandat mooy sa position ci lool mais ak dégg nañ sànq ci sa biir wax nee nga coalition Benno Bokk Yaakaar mais coalition bi est-ce que nekkul di fisi réew ndax gis nañ fi ay jamono ñu fi waxoon yëpp Macky Sall warul def troisième mandat la plupart dañ leen jëlee fu ñu newoon presque sax bokkatuñu léegi ci parti bi récemment gis nañ ko mel ne Alioune Sarr déclaré candidature am mais boobu ba léegi déggaguñu benn réaction par rapport euh, ñu nekk Benno Bokk Yaakaar may laaj ba xam mbir yi dafa soppeek ci diggante bi wala. soppeeku yan mbir ñoo soppeeku. Ah, ba léegi ku ne candidat la sax ci biir Benno Bokk Yaakaar kenn du ko wax dara te Idrissa Seck presque loolu bokk na ci lu indi jafe-jafeem ak euh, euh, président Macky Sall. waaw non non dara soppeekuwul. dara soppeekuwul. léegi candidature Alioune Sarr. waaw bon il est libre de de faire ce qu'il doit mais moom beneen structure la yor d'ailleurs je crois mais bon. Mhm. les candidats on le constate ah. loo loo ñu wax ci particulièrement ah non yow laa ko laaj. waaw ah, bon on n'a pas de commentaire à hmm. mais coalition bi aussi bon gisoo ne dafa fissuré wu. ah non non non il faut parce arrêter. que bon, je pense que déjà xool tête de liste euh, élection législative Aminata Touré déjà maintenant mu ngi ci opposition bi. waaw léegi nag. kàngam la woon ci yéen mu jékki-jékki rek dem. waaw bon kàngam la woon fan la jiite woon. ah tête Benno Bokk Yaakaar. élection législative. très bien loolu waaw moom. xam nga ànd moom ñaar rek am. ngeen perte élément bu doy noonu nga koy minimiser nii ah Pape Mahawa. waaw de ànd moom ñaar la. waaw mais bul minimiser dem bi. waaw soo paree rek ba yeggali. <laughs> doo <laughs> moom ñaar la. Mhm. Euh, ànd ci jàmm wala taxalikoo ci jàmm. Mhm. te nay rafet. Mhm. loolu moo ëpp solo. Euh, yaakaaruma nag man ne. que départ de madame Aminata Touré am na. a impact politique significatif pour ñëpp. Mhm. loolu foog ma jàpp ma loolu. moom du ma jàpp du tout. waaw hmm. ah, xalaatuma ah, loolu. ah internet buñ ko déggee moom mbaa duñ dal sa kaw. waaw ah, mais nañ bàyyi dal ci kaw nit ñi am nañ droit wax lañu ñu xalaat ci jàmm ak salaam euh, loolu mooy li nekk. Hmm. xalaatuma ko de maintenant nag nit ñi aussi ku ci nekk c'est pas le premier départ ah. yaa wax le hmm. premier départ Abdoul Mbaye fii la jóge woon il y a dix ans. waaw mais mais Abdoul Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall. ma malgré ñooñu dem nañu xam nga tey demu Thierno Alassane Sall. da ngay def ndànk. non moom laa munoo ma woo di ma laaj di tontu waaye ma dama am. waaw balaa ngay relance ma tontu tontoogu ma nga nga dagg sama tontu bugg ma relancer. alors donc j'ai dit Abdoul ci ñun la newoon comme premier ministre. Euh, ku deme ni am soto soo Sidibé ci ñun la newoon euh, nga jël ku demee ne Thierno Alassane Sall ci ñun la newoon dem mais am nga ko demee ni Omar Sarr ku nekk dans la majorité léegi mhm. am nga ku demee ni Aïssata Tall Sall mhm. nekk dans la majorité aussi mhm. euh, nga jël yeneen i exemple ñu jóge ci opposition bi ñëw ne ñëw ànd ak le président Macky Sall bon donc dynamique politique ak liberté de conscience ñoo ànd ku bëgg a dem nga dem. Mhm. Euh, Aïssata Tall Sall elle était maire de Podor. Mhm. Euh, Omar Sarr xam nañ valeur am Dagana euh, am na passion donc voilà nañ xool peser ku nekk li ngay peser rek. Mhm. ça permet de savoir fan la majorité bi nekk ba léegi. loolu mooy li am mais euh, surtout ñu bàyyi nit ñi ñu am liberté de conscience et de dire ce qu'il veut sans comme tu dis ay ñu dal dal sama kaw quoi mm-hmm. euh, non je pense pas que le départ de madame Aminata Touré am na un poids électoral en tout cas significatif pour ñun. est-ce que tey même si nag bon posture bu mu adopté tey. même si même si euh, j'assume totalement euh, euh une fraternité que j'ai avec elle. mais au plan politique li ma wax ni mooy dëgg te d'accord mu aussi avec sa démarche mhm. euh, vraiment de Euh, d'aller vers l'opposition ña mu àndal ak moom bokkuñ mhm. c'est pas ça pour man foofu de place am mhm. sa place c'est aux côtés du président de la République loolu laa xalaat xam nga bu ma la kiiwul woon doo ko wax waaw ah, mais wax naa ko <laughs> mais lii c'est pas caché hein mais les gens le savent mais quand même il faut avoir le courage des idées euh, oui je pense pas que am na euh, ce soit significatif pour nous mais deuxièmement li ma xalaat mooy li mu defee ni du noonu. waaw mhm. ah, ça ça ça passe et c'est aux côtés du président de la République aux côtés de la majorité. Mhm. ñi muy àndal bokkuñu dayoo bokkuñu gis-gis. Mhm. bokkuñu dimension. te la mu doon wax dend ak man di leen ko wax man xam naa ne loolu la gëm. et le départ de ah, la mu doon wax te la mu doon wax opposition bi. di ko wax Sonko di ko wax. loolu la gëm dend ak man di leen ko wax. loolu la gëm. waaye léegi li mu doon wax moom la wëlbatiku di leen ko waaw mais waaw mais yëpp jafe-jafe àddina la rek mais je pense vraiment que sa place n'est pas là-bas. Mhm. ah ça fait ça colle aussi la départ de Idrissa Seck aussi def na tollé quand waaw ban tole a ah, xam nga Idrissa Seck ba muy ñëw ci yéen. Mhm. lan la waxoon mburu ak soow. waaw. Hmm? léegi mburu ak soow bi dafa. tas. waaw mais moom non moom waxul loolu de mburoog soow bi la ci wax. <laughs> day déglu <laughs> mbaa lu mu ci mujjee wax. da nga cee <laughs> ko. la ko wax de. ah waaw moo tax dégluwaat ko rek. Eh, ba kay euh, la ko wax de. ci waaye moo ko wax rek waaye mais li waxoon bu njëkk. yow boobu nga tànn. ah la nga bëgg a tànn boobu bàyyi bi. léegi ci diggante bi. Eh, lan moo fi xew question. Ah, ambition la mais moom moom moom moom soo ko nga laaj ko. Hmm? mais. Euh, moom soo ko gisee nga laaj ko moo la mun a expliquer moom lu fi xew mais mais demam bi tey. waaw en tant que tey ku bokk benn bokk yaakaar. Hmm. noo ko gisee. bon à partir du moment où lui. Mhm. il est candidat c' normal que mu dem occuper wu de son projet de candidature. léegi li ci des nag yow saa yoo gisee nga laaj ko moom nu mu demee ak lan moo tax. Euh, mhm. euh, mu génn ak yu demee noonu. Mhm. léegi daanaka bon. question yi ñu andi presque bon euh, jeex na sax temps bi bi dem na léegi bon bëggoon nañu euh, ñu wax tuuti euh, Ousmane Sonko actuellement. gëj na Ndakaaru te bokkul si ay habitude am est-ce que tegu leen ko fin na ba mu dem toogi Ziguinchor. déedéet. Hmm. léegi lu tax mu toogi Ziguinchor. ah soo ko gisee mu toog. ndax mu toog fa xaw ma ko euh, nañu respecté suñuy institution ràcc ci jàmm euh, jàmm nag dañ cay teg ci dëgg man de ci li ma xam waxuma ci li ma xamul man xaw ma comploteur musuma complot suite ba tey yàgguma xam sax fu mu nekkoon dañ ma ko woon yàgg yàggul dara xaw ma fu mu nekk euh, mag damay jéem a màndu ci li may def ku mandu dëgg ñaari yëf rek nga fi gis ab jànq bu porté plainte waa ji amul leneen fekkewuñu xamuñu na mu demee kenn xamu ko nañ ci mandu waaye ki war a njëkk a mandu moom la Ousmane Sonko bu mu taxaw bañ a seetali deram ñu ne askan wi jóg ngir ma déggir loolu loolu joxul orma suñu institution joxul war ma suñu tradition politique et puis joxul war ma askanu Sénégal chaque fois suñ la convoqué pour des affaires personnelles nga ne di nga imposer le désordre ci dëkk bi c'est inacceptable mhm. lii daal laa ci mën a sànni ci kaddu mhm. euh, ñun Sénégal jour bu ñu demee ba suñuy institution mënatuñ dox normalement mhm. di wax la justice au nom du peuple sénégalais on n'est plus en sécurité. nekkatu en sécurité nekkatuma en sécurité. léegi ñu jeexal si euh, dernière question bi mooy dernière laaj bi euh, yow déjà directeur euh, général agence sénégalaise de promotion touristique te bu ñu waxee touristique bon dañ fay sosaan tourisme mais tension yii di am ci réew mi est-ce que tey dina sukkali tey suñu tourisme. waaw Sénégal moom am na wéy wu rafet. ci hmm. wàllu destination touristique. Euh, et réputation bi mu am nag mooy euh, taarixu dëkku jàmm dëkku bu stable et donc nañ def tout pour préserver euh, cette tradition la loolu dina dimbali tourisme bi. Mmh. ñu ngi lay bàyyi nga def sa dernière. waaw xanaa di leen gërëm di leen centre di ñaan yàlla def fi jàmm. Mmh. yàlla tàppe xol yi jubale ñu. sur Sénégal bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk. Mmh. loolu mooy li nga xam ne mooy mooy ñaanu essentiel bi. te nit ñi dal. te xam ne mbir yi du doolee ak fitna waxtaan la. moo tax ñuy saluer appel au dialogue boobu nga xam ne le président de la république te na ko. te mu war a doon une perspective boo xam ne dina respecter dina dugg en tout cas ci tradition démocratique Sénégal. mais fàttali ne dialogue amoon na fi. y avait près de 38 points sur les 38 points y avait à peu près 28. yoo xam ne am nañ ci consensus le reste ñu dem arbitrage et donc loolu la rek puis dialogue bi du dialogue politicien. pour des petits rendez-vous dialogue national la ñu wax c'est toutes les questions de la vie publique dont on va parler évidemment dina am parti politique mais ñi waxtaan ci avec ouverture waaw ah, loolu mooy li nga xam ne mooy ñu ci ñu ci ñu ciy sant bu baax bi nga xamee ne quand même l' essentiel de l' opposition a répondu ñu ci bari bañ l' essentiel de l' opposition a répondu à l' de l' nangu na dem ci table dialogue bi. mais ñu ñu ñu a ràññee xam nga dañu waroon tëj sax mais balaa ñuy tëj. waaw maa ko tijji waaw man mi tijji kay. mais mais man mi tijji kay bu ma dagg kon. <laughs> <laughs> ñu ci gën a ràññee ci opposition bi. ñu ci gën a ràññee ci opposition bi. déet soo waxee loolu da ngay indi jaxase ndax xanaa Khalifa Sall Sall kay ku ñu ràññee la ci opposition. waaw mais xam nga tey Sénégal fi mu toll. xanaa Barthélémy Dias. Sénégal fi mu toll nii ñu ñi ci gën a ràññee nga. Sénégal fi mu toll nii. est-ce que dinañ wax opposition. te duñ wax Pastef waaw ma ne waaw ma ne da nga ne ñu ñi ci gën a ràññee. Mhm. kon juum nga. Mhm. parce que soo jëlee pluriel. Mhm. benn nit nga fi bëgg a gën a seppi. non génneew ma benn mais ñu ñu gën a. waaw dafa nekk rek soo soo duggee ci loolu. da ngay jaxasoo. waaye li am mooy l'essentiel de l'opposition dem nañ ca dialogue ba te nangu nañ ca dem ñuy invité sax ñu ñëwul sax. ñu ñëw. ndax réew mi moom gannaaw man ak yow kenn si yow donn ko. ñu xëy di ci wax naan dañ ci yéene jàmm ba pare na doo ci waxtaan <laughs> loolu doonul moomoo ko am ci xalaat keneen am ci beneen xalaat nga ne doo ko waxtaanee loolu amul lu ko gën a doyadi. ci koo xam ne da nga ne da nga bëgg doon njiit doon responsable ci réew mi. Mhm. waaw soo jógee doon association doon journaliste doon mun munti doon di wax ci réew mi ci loo xam ne doonuloo ko moomoo ko ba pare ne duma ko waxtaane loolu <laughs> day di day di mu daweesu loolu. waaw ñun nag ñu seetlu quand même ne ci président Macky Sall doxalinam moom waxtaan def ci bokk waaw la journée même dédiée au dialogue c'est le 28 mai. Mhm. Euh, en même temps. Euh, moom gis nañ ci doxalin politique publique même dafa bokk ci ay waxtaan. Mhm. dialogue sur euh, les concertations enseignement supérieur concertation éducation nationale concertation ci nan la ñuy utiliser richesse. ak mhm. koom bi war a génne ci gaz bi ak pétrole bi ëllëg waxtaan dafa bokk ci démarche loolu ADN na la am moo tax euh, ñu koy rafetlu ci démarche boobu di encourager nit ñi ñu dem quand même aussi euh, ci waxtaan booba mm-hmm. ndax réew mi mënuñ lu dul waxtaane ko en tout cas ñu ngi bëgg ñu xëccoo ko ñun nekkul ci mm-hmm. xëccoo boobu nañ toog waxtaane mbir yi et puis euh, loolu loolu la Sénégal xam ci xam Euh, loolu rek moo ñu jig itam. Mhm. waaw waaw Pape Mahawa Diouf euh, jërëjëf ci. kàddu yi rafet na te yaakaar naa ni leer na aussi si ñu ko dégg. waaye Sénégal di la jaajëfal ndax heure buñ la soxlaa. Mm. fëgg sa buntu nga wuyu ñu. sincèrement nit ku baax nga aussi ñu wax ko fii ñëpp xam ko. waaw loolu moom moom nga ñu won jërëjëf waaw moo tax euh, ñu wax lool di tàggatoo ak mbokk internet di leen jox dig daje ci yeneen i entretien yu mel ni di leen wax ne au revoir à la allah. beaucoup jërëjëf